Amadou Ndiaye je suis le directeur des affaires sociales de la culture et des à la ville de Thiès. waaw ah, jërëjëf donc li sababu ndaje bi rek mooy euh, ñu waajal euh, édition festival Kaay Thiès bi nga xam ne ñu ngi koy dëgmal war ko amal euh, du 28 décembre bi nga xam ni moom la ñu muy 2019 donc tey dañu daje woon préfet moo ñu woo woon woo également ay services déconcentrés yi nekk Thiès mais aussi ay acteurs culturels ñëpp ñu yëngatu daal ci wàllum aada ak cosaan ñu mën a waxtaanee édition da de Thiès Talla Sylla moo ko initié li ko tax a jóg euh, lenn rek la mooy suqali développer culture fii ci wàllum Thiès euh, donc nga xam ne Thiès est une ville très culturelle donc Thiès tey euh, li may wax rek communauté culturelle yi nga mën a fekk ci Sénégal yëpp boo ñëwee Thiès da leen fi gis donc tey day daal jaadu ñu màggal loolu wane ko ndax développement boo gis wax dëgg yàlla mënul dem sans culture donc édition bi nag wax naa ko léegi ci nasaraan ñambaas tey ci édition bi te nekkul woon ci yële lu ci mel ni benn carnaval c'est-à-dire ab doxantu bu mag buñ bëgg a def ci dëkk bi nga xam tey euh, culture yëpp ethnie yëpp dañuy dajaloo nga xam ni Thiès koo xam-xam ni ville la boo xam ni euh, culture yëpp ñu ngi fi donc ñoom ñu war a mën a ñëw euh, def une forte mobilisation mën a wane seen aada ak seen cosaan ci kaw loolu rek tey dinañ amal le 30 bu jotee lu ñuy wax sargal Grital mbay ku xam Grital Mbaye xam ni nit ku mag la donc fii ci Sénégal donc ñun Thiès mën nañ ko tuddee sax équivalent suñu Doudou Ndiaye Coumba Rose la donc tey dem nañ waxtaan ak njabootam nga xam ni Euh, le 30 bu jotee fas yéene nañ koo sargal euh, njabootam ñëw wane li nga xam ne moom la leen bàyyi en terme d'héritage et que dina permettre Euh, à la nouvelle génération ñoom ñu mën ci teg seen i gët luy weesu loolu xam ngeen tey édition bi euh, ñu ko tuddee l'art au service du patrimoine xam nga bëri bële passé ñu ngi waxoon euh, vivre ensemble donc muy continuité rek nga xam tey jamono ji vraiment ay termes d'actualité la ay maire de la ville de Thiès moom kii au diapason wax dëgg yàlla mën a teg terme thèmes yooyu noonu nit ñi mën ci ñu faram fàcce ko xale yi aussi mën xam dara xam nga wax parrain yi ren festival bi mooy Kalidou Kassé ak feu Ousmane Sembène xam nga Kalidou Kassé nekk nit ku màgg xarañam ak ni ñu ko xamee weesu na Sénégal mais àdduna wërngal këpp xam nañ kan mooy Kalidou Kassé euh, de même ci même sillage boobu rek kii di euh, feu Ousmane Sembène nga xam ne moom tey wàllum cinéma euh, kenn dootu ko présenté donc moom dañ fa amal ay projection de film ay film yi nga xam ne mën naa ci citer rek Camp de Thiaroye wala Guelwaar loolu dina permettre les nostalgiques yi nga xam ne xamoon nañ ko ñu mën ko dundaat waaye xale yu ndaw yi mën a xam tey parrain ci festival Kaay Thiès ñi fi nekkoon ak ñu fi nekk yëpp loolu mu ween rek am na ay jéego yu ñu def donc am na ay pas yu ñu def jëm ci kanam ndax tey euh, le gouvernement à travers euh, le ministère de la culture bu ñu bëggee jël euh, bu ñu jëlee de la décision tey festival bi ñu boole ko ci agenda bu ministère de la culture loolu mooy rek affaire bi solo bi mu am ak yitteel na leen loolu donc loolu rek di ci santaat yàlla di invité également j'en profite di wax à tous les Thiessois les acteurs culturels que festival bi seen festival la 31 décembre nga xam ne euh, festival bi kat parce que l'ambition le maire mooy festival bi ñu internationaliser ko donc nañu ñun ñëpp nañ ci taxaw euh, mobiliser wu comme ni ko préfet préfet waxee rek amul coloration politique activité Thiès la képp ku nekk Thiès nga jàpp ñi nga xam ne aussi tamit ñoom ñoo nekk service déconcentré yi tey am responsabilité au niveau de Thiès euh, am pàcc bu leen ci war ñoom ñëpp ñu ngi leen di invité waat comme ñenn ci ñoom ni ñu Euh, c'est dans le cadre, ça rentre dans le cadre de l'organisation de la troisième édition du festival Kaikes, euh, qui est prévu les 28, 29 euh, et 30, 30 et 31 décembre 2019. Donc euh, c'est au cours de ce CED, donc CRD, a eu à, euh, à parler de, de, dans l'organisation pratique euh, en marche du festival Kaikes et ce qu'on ce qu'on peut retenir donc nous sommes très satisfaits par rapport aux engagements euh, tenus par la communauté artistique mais également par les euh, les, les, les services et, et, et, directions qui sont au niveau des Thiès donc euh, sous la présidence du préfet donc euh, cette fois-ci nous sommes très confiants donc par rapport à tous ces engagements et on espère euh, entamer cette édition du festival Kaay donc dans les meilleures conditions mhm. absolument euh, dans le même siège par rapport à l'édition précédente on avait richesse comme thème. Euh, on avait le vivre ensemble. Et aujourd'hui, on a pris l'art au service du patrimoine euh, comme thème. Donc c'est dans une continuité. Et il faut saluer également cette vision du maire de la ville euh, Talasila par rapport à tout cela. Le maire l'a dit tout à l'heure dans la salle, euh, c'est la troisième édition. Donc quand on parle de troisième édition, on doit sentir de la maturité, surtout dans l'organisation. Et en ma qualité euh, de directeur des affaires sociales, de la culture et des sports à la mairie ville de Thiès, euh, je surnomme euh, comme étant l'édition des grandes innovations. Parce qu'on a vu même dans l'organisation, dans le programme, il y a pas mal d'activités qui sont inscrites dans de l'ouverture, on a prévu d'organiser un très grand carnaval.

profiter pour lancer le festival. Également, euh, toujours avec euh, les innovations, euh, le 30, on a décidé d'organiser ce qu'on appelle euh, le Takusan de Gritalmbay. Qui connaît Gritalmbay euh, Un grand griot qui a, a, qui, a, qui, a, fait ses preuves, ne serait-ce qu'au-delà de Thiès, mais au niveau national. Donc vraiment, on a, on nous comptons rendre hommage à, ce grand monsieur donc, et à toute sa famille.